yaa ayyuha llazina amanu taqullaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun borom bi nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ragal leen ko dëgg dëggi ragal bu ci kenn faatu te fekk ku mu fekk mu doon ku nangul borom sant rixlatun ila daaril axira sunu bind bi weesu ñoo ngi teggi woon sunu loxo ci dëkkuwaay boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa moo koy am mu tudd alwasila te nekk ala manzila fil jannati alwasila alayhi salaatu bi mu amee wasila teewul am na benn pale ca janatu àdduna alayhi salaam am na alwasila nga xam ne aljanna yépp moo ca gën a kawe waaye am na beneen pale bu tudd walla bu nekk ca jannatu àdduna alayhi salaam am na fa ab pale boo xam ne bii moo ko nettali saxaaba ya wax leen nañ tabaxe pale ba birig ya na birig ya mel euh, na karo ya mel na saal yaag yépp mel alayhi salaatu salaam wax ko saxaaba ya ca nekk ci leen ataani al layla waaw am na ku ku fi dëkk ci kër gi biig mu ne am na ku dëkk ci ku dikk ci kër gi biig yëgal ko ne am nga benn pale pare na ma nga ca jannatu àdduna waaw ndeysaan loolu yonent bi am na ko pale boobu neena na pale la ba weexaay waag na mu mel rafetaay ba neena musul dox ci àdduna ba gis lu rafete noonu waaw musul dox ci àdduna ba gis lu rafete noonu te jàpp ne it àdduna lu rafete noonu mën na fee nekk waaw palem boobu nekk ca jannatu àdduna nee na musul gis lu ne rafete waaye waaye ndeysaan yàlla na nga na ko wàll yaa rasulallah nun ñëpp nam nun ñëpp tam nu am fa ay ay pale waaw waaw xam nga sunu buuri àdduna yi da dégg léeg-léeg ñu ne am na barab sàngam kër waaw fay noppalu ba demee ci réewi arab ya ci la ëpp almalakatu arabi saoudia buñ la wanee kër buur rekk nga xam ne buur mi moom ah, fi wàcc nooy na waaw léeg-léeg ñooy wan la benn pale bu nekk ci wetu Muna wala benn bu nekk ci montagne sàngam waaw amoon na fu buur boobu dañu mujj defal ko pale boo xam ne bi tabarkal la ci xeetu tàngooru yaram week lu ni demee pale buy faj seet <laughs> alayhi salaatu salaam mu am ay ay pale ca aljanna ya àdduna te yàqul këram gii di alwasila nga xam ne ma ngay wax ne ki benn famille fay dëkk te chef de famille ba ab yonent lay doon mu ne nañ koy ñaanal ndax mu doon ko ndax buñ ko ñaanalee ba ñaan nga nangu dig nañu ne danañ ñaanal intervention ci sunu borom ba mu baal nu waaw noonu gaa yi def bu ñuy campagne bu ngeen ma falee ma defal leen nangam kon bu ñuy ñaanal yonent bi allahumma rabba haasihi daawati taama wasalaati alxaaima aati sayidina muhammadan alwasilata dégg nga wal fadila buñ ko dee ñaan ñaan yi bari yowmal xiyaam ñu boole ñaan yépp teg ña doon ñaanal Muusa ña doon ñaanal Isa ña doon ñaanal Zakariya ak Yaxya ak Shuayb boog yonent yooyu yépp ku ci nekk dajale sa say ñaan nu mu tollu bu fekkee xeetam wi képp ko dégg noddu ñaanal ko ñaanal ko tusbaar bu tàkkusaan jotee nga dolli timis gee nga dolli fajar nga dolli ku ci nekk bu yomal xiyaamee ñu wax ni euh, móor xuja ñaanal na yonent bi fanweeri yoon ak ñett ñu ne professeur jibi ñaanal na ko fukki junni yoon ak nàngam kenn nàngam ñu ngi yaakaar ne bu ñu boolee loolu lépp buñ ko kontee ca takkusaan ja alayhi salaatu salaam mooy jot ca alwasila waaw waaw moo tax nun ñëpp saa buñ déggee julli rek bu daaneel rek nañ wate nu ñuy watee mooy ñaanal ko allahumma rabba haasihi daawati taamma wassalaati alqaa'ima aati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila ku ko mokkalul ci ñun na ko jàng na ko jàng buñ julee fajar nga wateel yonent bi tisbaar nga defaat takkusaan timis gee nga defaat boo liggéey ñu konte voix yi am ñoo ngi yaakaar ne kon insha allah alaxira euh, ca ngoon bu ñu dépuyee alayhi salaatu salaam dina jël ndam la daal di jël alwasila bu jëlee alwasila nag bu jëlee alwasila nag nee nag mu ñaan la xeet wi pour sunu borom euh, jéggal leen yàlla nu jéggal waay waaw mu mu ne kon koo ci xam ne yaa ngi koy ñaanal wasila googu waaw xallat lahu shafaati nee na sama ramm dana dana agsi ci moom yàlla nañ ca jot ngeen jot ca maa ngi ci rixlatun ila daaril axira yooyu yonent bi moo ko moom alayhi salaatu waaye am na beneen beneen pale moom yonent bi ah waaw fu mu ko am ala nahril kawsar bu ñu demee ca dexu kawsar ci wetu dex ga alayhi am na benn pale beneen pale waaw albuxaari nettali na ko mu ne yonente bi aleyhi salaatu salaam nee na am na benn pale ala nahril kawsar al kawsar nii ñuy fonke lagros wala nii nga xam ne moom la boroom xaalis yi bëgg a dem dëkkee ci wetu géej ci wetu géej noonu ko nit ñi bëgge la ko yàlla defale njool màkka sallallahu alayhi wa sallam mu am benn palem ca wetu alkawsar alkawsar nag ndox maa dàq ndox yi melow ndox maa dàq meloy ndox yi tem-tem ji noonu salaaw nii ndox waalo neexee nga xam ne bitik bu ko jënd tey bu subaa boo fa jaaree laajte ñu ne la jeex na <laughs> waaw ndox waalu mii nga xam ne tabarkalla ni mu tem-temee nga xam ne bitik boo romb mu am ko bu subaa boo fa jaaree boo laajte ñu ne jeex na ndox moomu mu ko raw mooy alkawsar waaw alkawsar ndox moomu di alkawsar nee nañu ku ca naan gëjamar ku ca naan gi te ndox la moom doo ko naan ba noppi soxla toilette waaw soxla toilette mukk ma tax wax nañ ko ci waxtaan yële weesu ci alkitaab ba yàlla ne yonent ba inna atinaka al kawthar la daal di fompiroo nga ñam noppi dem julli ji lojum xaram walla bokk rendim xaram door a ñëw denc doomam anas nee na ibnu malik radiallahu taala mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daf doon waxtaan ak ñoom ci benn addis bu gudd ndax léeg-léeg mu wax ñoom addis bu gudd mu ne dafa an ànd ak jibril ca rañaan ma rañaan ma mooy tukkeem bu guddee boobu waaw nga xam def ko def jóge Makka dem baytul maqdis jóge baytul maqdis dem aras jóge aras del si ci lalam te bul setagul ña ko gëm jag ba faw ña ko weddi alku ba faw waaw sural aminu ma al fawqa al amini lil asfiyaa nun la waaw maam Moussa Ka min sural aminu ma al amini ji waxari fawqal amini mbindum Seex Bàmba yàlla waaw ca barsan yàlla na ko yàlla fayal waaw maam Moussa Ka aleyhi salaatu salaam nee na tukki ba ba mu ko tukkee ah, di visité nag di dugg ci roq yi roqaan yi di xool yay am ëllëg ndax mën na koo nettali dafa dañoo ànd moo Jibril mu yàgg rek mu gis ñaari dex bël-bëlum ndox maag kel-kel jaag seddaay baak rafetaay ba mu ne Jibril ma haza ma haza ni naharaani yaa ñaari dex yi moom lu muy wundu mu ne ko genn gi mooy al niil genn gi mooy alfuraat ñu ngi fii ci àdduna genn gi mooy niil genn gi mooy alfuraat waaw mu ne ko waaw ñaar yooyu ñoom la mu ne ñoom ñaar ñi nga gis fii ñoo nga nekk ci àdduna waaye ñu ngi ball si fii mu ne ko fa saa huwa bi nahrin aaxar alayhi xasr yonent bi gestu fële seen geneen dex ne ko waaw gee nag waaw mu ne ko waaw pale bee mooy seen nag min lu'lu wa zubarjad waaw ne na jibril gàcc ko loxo mu ko gàccee loxo mu ne ko maa haza yaa jibril mu ne ko haza al kawthar alladi xabaa laka mu ne ko li nga gis nii dex gu rafet gii ndox mi kelkeli salsabil jaarul ci consolateur jaarul fenn te sedd guyu ndox mi weex ba mel ni suukar neex lool dàqalem boo ca ne benn kopp deux mille dix neuf bala ngaa marati deux mille cinquante <laughs> yàlla ñu fàggati weesu ko waaw amaan na beneen pale moom yonent bi pale boo xam ne bii dañ ko tabax eh, mu mel ni lu ñu tabax ci jawwu ji yéeme nga daal yéeme na waaw waaw soppe yi soppoon sallallahu alayhi wa sallam mooy seeni seeni cité cité yi soppe yi nisan waaw ndax daana yeewu léeg-léeg wax leen man raa minkum layla ruya bu ñu ma saan julli suba toog ci jàkka jay zikkar aka wird aka ñaan aka def yëf bu wër setee bala ñoo ndékki ji mu ne waaw ndax am na ci yéen ku gént dara kenn lii la gént kenn lii la gént mu nekk leen léeg-léeg moom lim gént bokk na ci géntam yooyee euh, cité yi nga xam ne al ahbaabu wala sayidul ahbaab yi moo ko moom euh, tabaarakallahu muy cité yu amam solo waaw ndeysaan cité mooy ay nit ñu bokk dëkk ci benn barab waaw soo ko defee ci cité nag da nga gis jigéen ñépp man koo ànd góor ñuy xëy di dem yal na nu yàlla yërëm ala xaal maa ngi ci suur maa ngi ci ngeen baal ma euh, rixlatun ila daaril axira maa ngi ci teraay nga yi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa di am ak i saxaabaam am na beneen pale ci aljanna boo xam ne bii suñaay yaay xadija ko moom laa xadija moo ko moom jigéen ñi mel ni moom mbaa ñu jéem ko mel bu ëllëgee ñu fekk ko fa dund ak ñoom hmm? waaw waaw jigéen ñi it ku mel ni suñu yaay xadija ali sunu borom subhaanahu wa defal la yow tam pale bu mel ni paleem ndax na amul gën a lënte déedéet nun ñëpp maase incha allah waaye nun ñëpp tolloo ay ay fay bu fekkee ñoo niroo ay jëf abu hurayrata nee na yonent ba def ne jibril dafa ñëw ne ko yaa rasulallah mu ne ko labbayk mu ne ko haasihi xadija ndeysaan mu ne ko waaw daf ne ko soxna si mooy xadija waaw mu ne ko waaw mu ne bi mu ñëwee indaal leen ndab waaw bi mu ñëwee indaal leen ndab ndab loo xam ne dafa def aw ñam am ñu ne ndab lu def lu ñuy naan waaw mu ne bi mu ñëwee mu ne ko nuyul ma ko sa borom it ngi koy nuyu maanaam jibril na yonent bi nuyul ma xadija nga ne ko sa boroomam mi ngi koy nuyu li tax ma ñëw tey nag damaa yor information ak benn plan bu am solo bu lay wan bay Xadija euh, am na baytun fil janna baytu boobu laa saxab fii wala nasab coonu amu ca benke ñenke amu ca maanaam dëkkuwaayu Xadija boobu mu am ci topp gim toppoon boroom këram googu te déggal ko moo ko may kër goo xam ne nañ ko tabaxe doo dem bam yàgg couleur yo soppeeku walla coono am ci kër gi mbaa ñuy xëy di wuti dépense tëj kër ga dem loolu mbokk yi lenn la ci la gaa yu baax yi am Omar ibn Khattab am na fa palais waaw Omar ibnu Xattaab it am na fa palais radiyallaahu taala anhu mbokk yi yàlla nañ am pale ñuy noog yéen ci pale yooyu nga xam ne borom bee koy defal ñam koy defal bokk na ci ñam koy defal nag ku tabax jàkk ci kaw suuf yàlla tabaxal la pale foofee fexe leen a tabaxi jàkkaa ki juma ndax ngeen am ca palais ya jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak si nañ jataay bi ndax suñu mbokk yi ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal lu ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ganaan doon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu